asalaamaaleykum wa rahmatulahi suma gaañi naka ngeen def mbaa defu leen dara ah ma ne rek ma ñëw quick quick quick wax leen thank you so much ma ne ko ne si ramadan bi ma ànd ko ak yéen ci sumay recipe yi bu leen ma mayen damaa ngi nii dexee ci suma tool yi gis ngeen maa leen mu leen suma sense bi sa africain nag sports wu laa def tey yéen <laughs> kenn du ma rey dafa sedda di bii kenn xamul affaire am wa di len wax thank you so much si luñ and ak yeen trou de Ramadan suñ recipe yi ah mané ko né wax dik né yalla apprécié naa ko bu baax a baax ba pare di len wax tamit thank you so much si hampas yi si suñ am eat juice si yo nga xamni ñu leen ko personnalisé salon bam rafet ak sweet si yeb nga xamni solna out den leen wax thank you so much amulen morom yeah. wow len wax ne jere ngeen jëf inshallah allah len leen gisaat sunu he yalla yan nañ fekk ay ramadan yu bare bare hade hawa fi tuti yan nañ fekk ay ramadan yu bare bare bari ah inshallah rabbi kon mené ma ñew wax leen jëri ngeen jëf thank you so much ah ta inshallah rabbi bu gëna la ñu indi it special suma ko suma yaram maye inshallah suma son lol lol lol xam ngeen man dama bëgg am um, yeen man ma allah rabbi suma kin family fi la leen def motax luma toga rek dama leen ci dé incha allah suñu ko yàlla maye fan ak wér kattan ah suñu nañ leen indil it su neexee yàlla pour seen ndéwénal balawante ak yéen ah toog rek waxtaan rek ah comme naka laa ko dee yéen ñeen xam naa miin yéen loolu si man kon leen wax ne thank you jërë ngeen jëf am moo seen fay si season yeeg juice yeeg sweet seeg suñ gift hampers yi gis ngeen ne léegi dañ dee def xam hampers yi ah, post events waaw boobu noonu tamit mën na ko dama ko dee def ak xale yi koo xam ne yaa ngi am bugat like defar gift dañ ko lañ la day defaral gift bu nice and nice and nice basket ñu sanal la sa love one either birthday anniversary whatever lu xam nga ko rek dañ lañ ko day defal kon baax na guys dinalain leen gisaat inshallah rabbi dina wax ne ngeen am happy eid ah spend it well with family and friends inshallah rabbi bye love you guys jërë ngeen def assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. gañi ini ah, ñep nuyu na leen bu baaxa baaxa baax di leen siyar ah melako ne dama tok rek di toga mene ah commencé wu ma ko woon film waaye ma dem ba ci digga mel ne rek ma la ko ben yoon dama toog ben ci cin yekal some of my neighbors inshallah. so loolu laay toogalee way ma plan mon pour film ko ma dem ba ci kanam mel ah you know what hara rek ma film ko ben yoon rek waaw <laughs> so mu ngoog ma amna yo xam sax commencé na ba pere so ma ngi ni tek suma diw suma cigare bu mag bi la ko tek ni li bisaab la mom lay defar ni waaw bisaab lay defar ni spinach ak ak ak ak ak ak lifit kanja and then suma jini yi ni so dama fry some and then some ma bàyyi ko and then ma am some of my nduga yoo xam sa ebeeguma ko mu ngi ni wow am nañ suñ am uh, supame nyambi banga lipas li la ñam kana bu ne le kana bi dama ko tumbal am ci tamit suma am couple of li lifin batante am na carotte bi kaane bu sew bi dafa neex am nañ sweet pepper soo fii nii dama wal nii li ma wal mooy su ma am chopped tomatoes moom laa wal fii ba pare ma boole ko onions ba pare maa ngi wal lii tamit lifin la am dama def tuuti parsley ma def spring onions ma def kaane bu sew bi jalapeno bi ak kaane bu dijja ak laaj moom laa boole ni ma wal leen together gis nga dama njëkk a wal bii ba pare affaire ma wal am am soble bi red and white ma bolé ko ak am tomato chops bi so légui suma di bi tanga na haram di ka suma yéeg bi waaw ni def ko da ko ak ñu def suñ sel Like, like, like, incha allah moom lañ bëgg a defar nii tomate purée bi moo nekk nii bi laa jënda maa ngi tam tam suma yéet géeja sorry soo léegi ñu ngeen bii nag brand bi dafa xaw nga ba bëgg dee moom kon naa ñu mu dirika xaw ma dirika dirika la tudd soo moom defal li ma def ma def yëpp def rek ñu sirka si dinaa boole dinaa di waale suma ñaambe bi eh, wa super bébé moom dafa ka a ñor karot bi tam dafa gaaw a ñor so ne ñaambe bi rek laay di walé bo zéro seasoning sol bi rek moom may gis bu nekk ma saxati ak yéen adama jibis waaw mu ngi ni moom mo ma gunge fu nekk wax dëgg neex yalla wa bu leen si maay ndifin yi daf koo gën a di ndifin rek yeah mo xaram rek ba sit te dafa safar cin ba suñ bisaab bi tam ñu ko tek bisaab bi dama ko def neti tu kaana bu dija kanja ak spinach dama ko spinach pure bi nak la day jënd nak ñaarel way tay dama def fekk mako fa rek ma jënd benen normal man bu nek ci timbi nga ay ko dina fin ko def rek dama baxal am kaani yi ba mu waaj a ñor den ma am lifin léegi ñu may ko moom si léegi waa dama ndikam daxal am ñaa am bi ba mu waaj a ñor ma jël spinach bi def ko si suma am seegeekaay bi ma xal koo raxas tuuti ndox bi génn ko si tin bi la nekkoon den ak tama sotti ko fii nii def fa limon ak kaani bu dija ak tamit am am lii lititu bi soo moom laay baxal ni tuuti demee ba nga xam ne ñor dama ndox bi génn ma soog koo blend waa gis ngeen suñu roof bee nii suma ma nak dama ko dee dama ko rofoon day before dama ko waasu ni bam set seet rof ko day before defaat ko ci fridge bi loolu léegi suñu roofee ni dama su bëgg ci ba nii sànni ci fii ni leen ko def takka dara leen ma ci mess bi de benn mo moom neexutu ci again ci génn yëpp si roof suñu demee tamit da nga xam ne tamit ñu ngi suur rek tamit ñu def ñu dañoo defee rek firkase ka dañ ko yàkkamti di ko firkase di ko firkase ba mu dox ba nga xam ne wóor nañ ñu ne waaw nga tamaate bi nu mu xonqee léegi nii lañ ko def di firkase sànni nañ si xorom ak tamit al grillé da a little bit way gis ngeen blend na suma am bisab bi ba pare dama ko faté sax lifin bima ko way dama ko jël rek blend ko blend na ko ni ba pare bisab bi ngi ni mu nga saf amna netti tu saf na sàmpa so fu nek bisab bi dama lay def lu bari suma ma ma freeze ko as well nga xam at least boobu dina ma nopal moo tax ma def nii lu bari léegi so mu ngoog bisaab bi mom pare na so léegi gis ngeen ñulug na ba pare nak def na suma yu sew fu nek ak ci mu ngeen euh, gis ngeen ñulug naa ba mu baax léegi defaguma jën yi nag damaa diigal suma lii daf dee eh, neex soo ko diggalee eh, soo soo paree mu nga ko décorer yep jalapeno bu red bi la and then suñ kànda bu dija yeah so moo nekk mahal, léegi damaa xaar tuuti mu xala jóg rek ma ma def suma tamit waaw ah pas ma gars yi fu nek rek dama bëgg defar am fish ball mini fish ball mom la ko def da bëgg a defar soos yi benn nga bu cin lay def so mo ko gis ngeen li demba demba la ko jin xaar ma moom gis ngeen jën nam ngi ni makrel la so dama ko baxalon de ma gine yah yema tas ko so léegi li muru la muuru bi dama ko jël ni dama ko dama ko blend bam nek sunguf ni gis ngeen dama ko blend so fi maa ngi fi am suma couple of ingredients sa ma def li parsley la ma def ko si def na fi spring onion um, ma def si bay leaves a bit ma def uh, sweet pepper and then jalapeno and then um red xam white onions and then garlic so mom la am fi ni legui li ma def mo ma fa def mburu bi mburu wo wow bu moo ko ma wa xam nga pour jën bi mu mun koo téye pour suma ko danka parce que dama ko danka danka yu sew ko fry ma def ko comme sauce there. Make him a little léegi nak gis ngeen wol naa ko bam ba gis ngeen mu ni nii am na cafka saf na sàppa gis ngeen yeen bi la way soko ko ak mburu bi daf la dee ko daf la dee hepp soko danka gis ne dina mun a lii so dama ko def bool yu sew waaw ma toga ko sama prema fry ko nak bam ba ma gene ko den ma toga ko soos soos bi soos bi ay su ma ko génnee yi den suma defé defee toge ma suma gravy bi ba pere ba nga xam ma jëlat am jën bi digal ko ci ndank pour bu mu tas tamit xam nga tamit jën la ba léegi rek tamit nga wara baye xel dama baye xel naka la ko toge gis nga mo nekk ni li nit mun nako def tamit bulet waaw way tamit man nag bulet duma ko def faral def jën duma def faral a def bulet bi mooy lifin am ganar bi am chicken breast mom la def faral def ko gis ngeen fum mu nekk mu ngi ni da nga ñëw dañoo jël diw rek def ko si pour soko lifin bu mu tayu say say ci gis so mu ngi ni waa gaay gis ngeen fum nekk maa lifin li ma ci def mo dama ci xalaat saani tuuti bread crumbs parce que dama gis ni bima ko danka ba legi mu nga xalaat tooy soo te bugguma pour mu am dama buga mu neex dank mo tax ma def ci bread crumbs gis ngeen ma ngi danka legi bread crumbs bi pour rek rek nga xamne soo ko danka rek dina neex danka di toy so ma danka yi ma wan la way gis ngeen fu nekk gi ngeen maa ngi ko lifin pereegu ma sax du dugal ni ma wan la ko def ci li fi bu em rek so ko defee fry bu li xam nga jën mom dafa gaaw mo na tass tas spécial jëni fi yi nga xam dañu nekk ci freezer yi ñu ko fry ni fum mu nekk dama ñu nak sépi suma yu sewi ma ñëw nak jema a suur soo gis nga recipe bi ni tay mën na mo nekk recipe bo xam nit mën na ko toga xëj ne idé parce que xam nga ñaarel julli bu ndaw nit ñi dañ dé toga ben ci nijeen si am julli bi na afta su ngon ci ñu soga laka so li mën na mo nekk tamit ben ci ni jën boo nit mën na ko toga si it so amé say gan wala nga am sa family ñu ñew mën nga ko défé ni as well léegi suma onion si pour suma gravy bi pour suma sauce bi mo nekk nii nga fry naa ko xam nga jën moom dafa naxare fry waaye wax dëgg neex yàlla bii moom try na bu baax a baax a baax so mu ngi nii fry naa ko ba mu brown then after su ma tojee suma sauce lu pare ma def ko fa soo ko defutee nii rek after dafa tas ni ma xamee jën bii yi nga doo ko gis nii <laughs> moo tax ma ko def fry ba pare ma pare ma digal ko fa nanka su suma sauce bu ñëwee ma digal ko fa nanka rek bàyyi ko fa soo pare jël rek gis ngeen ku nekk ma diwlin ko def ma ko def tuuti biasa. am naka lañ ko defee red onions akta mis sweet pepper ak jalapenos ba pare suma roof bi tam ko si def ko si as well waaye damaa wol dem ma soog koo def ba pare suñu soo léegi mën naa def ndànka ndànka ma ci bi ndànka ndànka rek mën naa ko def sax soos day bi saf xam nga maa ngi or mënuma mos waaye xam nga tamit soo ooree mën ngaa teg sa làmmiñ bi rek nih soos bi mu ngi saf dem neex ba bugg a dee soo gis ne soo paree moom nga ji rek soos sa kaw ceeb soo léegi dama ñëw soos mu maala bi ma wal mu ngi nii lii suma roof bi la moom laa am nii soo dem suma gi nga seppi naa ba pare soo léegi ñu wala bisimilah mu war a def yëpp man ko waree sotti soo gis ngeen sóob naa ba pare léegi nag ñu def si ma ko ko say jaxase rek

man ceeb dama dee bëgg pour mu wow su motax mu ngi ngi gis ngeen so den baye xel so léegi dama ko départ may ko fooylaat ak yéen tuuti bam gën ñor ma ñàmbi bi de moom ndekk daf si desaale sama ngo ñu mayaat ko foil saxaar su ko defee cuulu lagi mun a gën ñor affaire bi Hindi naman yung lagya ka. Plate sa inyo. Balls, okay? Medyo mayak ka na. Mga gis ngeen suñ ceebu ji na ngi nii ñu sos suñ sos bi nii si kawam gis ngeen bi tam mu again ceebu jën lan yi de Wow, waaw so mu ngi nii beneen a ngi si kaw so ma daw nii rek yóbbu suma néeba si ah ne leen it mubarak naka ne ramadan mubarak so ma ngoog mu ngi so man taw sama pere ba def sama asset ci ñoo ci ñoo ndogu ma won len man tam naka la defé sama asset wa sama gaay gis ngeen man tamit lekk naa ni suma añ rer waaw fu mu nekk ñu ngi dem nak rer so gis ngeen suñ ci ba ngi ni tay ni lañ ko defé def suñ ci bu jën bu am sauce ñu won nañ len process bi yépp ba légui am bisap fi yéem a ko ci rek pour a little bit of décor tout rek so ñu ngi ni di dem nak ah ñi ngi roof suñ gi gis ngeen ba moo wax soo lii laa leen indil di leen wax ne mun ngeen koo def mun na moo nekka mun na moo nekk ida benn cin bu xonq wala benn cin bu weex pour xëy na it nañ comme que jili bu ndaw moom nit ñi dañ dee faral a def benn cin yi jën den afta si ngoon si ñu def lakka so moo tax mi ne ma indi ma fiim ko rek su ko defee ma séddoo ko ak yéen soo lii moo nekk suñ ceebu jën ngoog so léegi nag joxe naa suma nii bu yi ba pare su fi mu nekk nii tam ñu ngi ñëw nag ñëw nag dem nag añ def suñu reer ah yéen ñëpp invite naa leen waaw vain na leen especially suma tuure ku ndaa qualité duma len tooñ te dama la ñëw invite suñu reer bi reer bi ngi nii macha allah.